lu baax du baax lu baax du baax lu baax du baax ba jàll baax waaye bàyyi Serigne Saliou weesu baax ku sopp Serigne Saliou ay sama Serigne bàyyi moo weesu baax baax gi yem xoti baax baaxal gaay xam gi Serigne sëpp Serigne Touba joo loxo màggal xaadim borom jumaa ji Cheikh Bamba yaa daa way bañ a selaw guddee ak ba jag bañ a nalaw borom ñi daa way selaw ngir xam ay sëriñ bi amu maqaamam di la woo ñu waaye muri ñoo mu wax ñu tuuti te bu mu wax selaw ñu xam bi Serigne Touba mënatuma jekki te nekku muy jooy sama sëriñ ba wax borom jannatul maxwa a yaatamaa jooy mënatumaa jékki te nekkuma jooy Sëriñ Saliou Mbacké Sëriñ Saliou Mbacké Sëriñ Saliou Mbacké ku sopp Sëriñ Saliou jur xol magal Sëriñ Saliou mënatumaa jékki te nekkuma jooy Sëriñ Saliou Mbacké adduna yaatamaa ku ko sam xol mu gis la mën a tëra gisit du jot mu saw la si Saliou ma ku ko mosoon mu mos la koo mën a tëra mosit du jot mu saw la si Saliou Mbacké ñu ko amoon te ñàkk ko kun mën a tëra ñàkkil du jot mu faale ko Seex Saliou dem daay duniya bi tey la jeex loolu moo di bambal doom ya ñun ñëpp dem ba jeex sëriñ Saaliw Mbakke keroog dem nga daa jaaxal ñu ngi ne kuloom toogoon aw abar sax ñun ñëpp bëgg ba feex sëriñ Saaliw Mbakke ginnaaw yaa ngi koy jooyoo raba suuf si ñëpp jooy te xam ne ne dootum gis ci duñu yàlla lan di neex bisu aljuma yéene te moo def ñëpp li moo jël sëriñ si suñu kan borom xalima di tooñ ñëpp jooy ba yi fi gisoo daanu Seex Saaliw ko yee salaat ba bi daanu ku sant Sëriñ Saaliw sant moo sant xel comme dafay daara ku dem ba xel comme yow satu jaara jaara ma soxna far jaxate yow si gil nga waa njaxate ba bu laan nga doo naxate gisa dooma jar roxate ñun mooy Sëriñ Saaliw suñu mbër ku sopp Sëriñ Saaliw lii nag lu ñu bor dafa amuk payam te du war kooku way koy dama ñor bay saal tur bi yaa koy asalaat bay saal gam yi yaa koy bay saal xooli yaa ko doon waat ak doon musaani yàlla ba dafa tunu mër a tunu ñàkk a tey liggéey sant naanu sant leen leen ma saaliwu ku di julli ñu santu Seexi Saaliwu santu ko war naa koy julli rawatina ko di murid ana soppey Seex Saaliwu ana soppey Seex Saaliwu ku di jullit jógal taxaw ñu santu Seexi Saaliwu santu ko war naa koy julli ku sopp Sëriñ Saaliwu santu ko war naa koy julli ñun ñëpp jóg taxaw ñu màggal Sëriñ Saaliwu ana soppey Seex Saaliwu ku di jullitu jógal taxaw nu sottu seexi saaliw sattu ko waral naa kuy julli ku sopp sëriñ saaliw mbaa nga bëgg sëriñ saaliw ku di jullitu loxo ca kaw arama sëriñ saaliw yàlla mu sëriñ bi ku jub di